parcelle booy bu ci ñëw sama tuut tànk ngay doon mhm. ak ku mu munti doona ba ci grand parce que xamoo non loolu loolu loolu loolu loolu noonu mm, diiranteeg sa musiba la ah, xam nga fu may waxee non d'accord d'accord xam nga tey euh, d'accord gaynde nit ku ne da nga koy respectel euh, li mu doon li muy def ma booy hmm. ñu samay concurrent kon ma gën a tuuti bët quoi loolu kon ma tuuti parce que man ba may ba may ba may débuté laay def ay vidéo deux millions lu teg dama ko doon teg semaine bi semaine bi ñu ñaa boobu yow gis nga samay vidéo du mu génnee man dama yàgg investir sama musique parcelle ko déggaatee hymne la xam nga bu ma jëlee lii aussi tam du boo yooyu noonu fierté la ci man parce que ñoo ñi ngay gis ñooñu ñëpp maa leen njëkk a boole son mhm. a yéegal concert ko fan kon tey ma jëlee sama koy teg des fois may bëgg la booy duñ samay concurrent samay rakk la doon i normal normal que hymne nga daan dégg bu ñu xëyee yeneen mu ñëw. Euh, ah, deux ans yi dégguñu ma ñeneen jug. xam nga loolu noonu juste peut-être dama leen koy may quoi. mais man Alioune Zik samay mag la ñuy ne. Ah, xam nga mais hymne ya yow man seetaan la ak Pape Sidi Fall émission bu mu amee a classe. waaw Alioune Zik yi defuñu fi dara pour rabu parcelle. xaw dal seen kaw booy tamit war nañ dal ci kaw hymne. lu leer naa booy war nañ dal ci kaw. non c'est pas pareil xam nga lu tax xoolal bu dee ko de. <laughs> Bonjour, c'est téléspectateurs de Police TV. Ravi de vous retrouver pour cette euh, émission interview exclusive comme nous ñu koy à chaque fois ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a di leen gërëm ci di ngeen ñu suivre programme à travers nos plateformes digitales de Police TV donc mbokk ma maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax may am di dalal nga xamante monument la ci musique fi nga xamante ne euh, mais aussi rap Galsen bi nga xamante ne ñu bëri ràññee nañ ko ci production yi nga xamante ne moom lay def tey nag dalal en exclusivité ñu war a waxtaanee lu am solo Ibn Ziaza nuyu naa la ziar naa la. Eh, mon frère. par exemple big up. le up. di bëgg aussi tamit gars yi suivre le Pulse Sénégal yëpp ah. euh, di wax ni seen job bi mooy nice. merci di bëgg képp kuy bëggee Nijaasa di big up maire bi bu baax. macha allah maa ngi leen seen jàmm bu baax alhamdulilah. naka naka Paya mu ngi neex. alhamdulilah comme daaw. comme daaw. mais gars yi ne ne yaay maire Paya yaa wax ni yaay maire Paya. Diaby Sané sax man la reconnaître ah. <laughs> kon ñeneen ñi ay lan lañ. ay chef <laughs> ay chef de quartier lañ dañuy kii nii rek maa leen jox mission xam nga mooy loolu. d' accord ah loolu de am na solo moom mais Ibn. Mhm. l'attente a été longue. Mhm. très mhm. am na ay boo yoo xamante ne ñu ngi doon pëndal si Grab Galsen bi te Ibn boo xoolee ñi ko xam dëgg-dëgg xam nañ ñu boo rombee miiru parcelle Grand Yoff. Euh, fu mu mënta nokk fii Sénégal da ngay gis turam ñu koy bind ci miir yi. nga jékki-jékki toog lu yàgg lu waral loolu. bon boo xoolee boo xoolee after moo def sama Sorano ah, en 2019 dama ñëw génnee benn projet bu tout euh, dafa leer. dafa leer voilà album boobu mën naa ne. Euh, masse bi yëpp mun naa ne fa lañ ma gën a xamee quoi fa lañ ma gën a ràññee mhm. bien vrai que ni maa ngi def chaque ay concert daan ko tëgg Kabana tëgg mhm. Akapes man chaque dama daan tëgg quoi euh, ba ma ñëw di def dafa leer bi dafa fekk parcelle D waaw amatul hip hop Alien Zig lañ daan dégg ñoo fa nekkoon ak rescapé rescapé demoon na États-Unis Alien Zig ci lan lañ nekkoon man ba may ñëw dama ne carrément faaw maa indi benn différence quoi mhm. Euh, ma doonoon un album ci Boy koo qui old school quoi. effectivement voilà bu projet de 16 titres dafa euh, aussi tam un challenge quoi. Mhm. damay damay damay damay song ji yenn saal fait un waaw. xam nga suis dem dama yàgg am public boo xam ne dafa nekk sama ginnaaw avant loolu. man su ma xëyoon suba ma génnee benn affiche ne damay tëgg stade. Mhm. wala waree ba fu mu doon bulti tiit loolu dama koy feesal quoi loolu aw ma aw ma sax sikk sàkk ci yooyu macha allah xam nga ma mhm. ñëwoon fekk parcelle xawoon naa ma ñëw génnee projet album bi génn ma maye concert gratos mhm. après un mois après ma def Sorano ba ma génnee Sorano ma bokkaat aussi tamit si catégorie Galsen Hip Hop Awards meilleur album yi bokkoon naa ci man One Lyrical Omzo Dollar euh, Clayton Hamilton affaire yooyu noonu bari woon nañ quoi euh, ba ma jugee foofu noonu une semaine là def après sama Sorano Covid bi am. xam nga ah, bu Covid bi dee am aussi tamit euh, jàppoon naa Grand Théâtre quoi. yaakaaroon naa afta ben ki buy romb la rek. vite mhm. fait xam nga mais loolu dafa laaloon aduna bi yeb bo xolé voilà c'est vrai c'est vrai léegi ba Covid bi ñëwee def na ba un an bo xolé mhm. euh si un an yoy non nak laa toogoon ma ni damay génne benn projet de mixtape. Mhm. benn mixtape quoi de huit titres pour sànni ko mais vu que ni bugguma di liggéey sans di sans muy ci man. quoi di sànni comme ni ko gars yi di def parce man dama jóg lu may def man business la. job la man lu may def lu ne maa ngi ciy séntu tamit li ma ci dugal ma génnee ko. seepet naa loolu am na solo. mais mais toog lu yàgg est-ce que baax na ci artiste bi showbiz nu muy demee vie temps bi nu mu gaawee. vie mhm. booy nu ñuy def. Hmm. est-ce que tu as un artiste. non d'une part ah. d'accord la constance boobu la gars di soxla le public du hip hop Galsen euh, pour pour mu mu mais sincèrement. gisoo fi koo xam ni dafa ne kii dafa gëm moo. d'accord kii dafa ñëw gëm càmm non non amul. ok càmm dafiy nekk mu nekk fi bu liiwul keneen bu génnee rek day daw ci kaw. d'accord même public bi mooy mooy mooy mooy mooy wër ci yenn artistes yu bari yi ngay gis quoi. Euh, am na ñoo xam ne am nañ public bu fidèle. si ñoom n'empêche dinañ déglu ñeneen ak ñeneen mais am nañ ñoo xam dañuy fidèle ci ñoom. c'est pertinent man kay sam benn son am naa public bu fidèle ni Castro quoi. voilà euh, baaxu ci nag. ndax loolu noonu entre temps gis naa ci jàngal na ma tamit lu bari. daf mel ni suñ borom borom. dafa am lu ma doon wan. santi jàngal na ma ci lu bari parce que. am na li ma doon topp ci ginnaaw. Hmm. ñu bari tey gisatuma leen. gisatoo leen ñi ma daan déggandoo déggatuma leen. xam eh. am na ñoo xam toppoon nañ ma ndax dara. ndax dara échange comme loolu lépp tamit. Euh, jàngat la jàngal na ma dara. effectivement euh, d'autre part aussi tamit euh, toogaay boobu noonu dangay gis ni. am na hmm. lenn loo xam ne yaa ngi ko ci manqué. macha allah bu nekk loo xamante ne lu am solo. mais entre temps on a vu des rappeurs di génn man maay entre temps yaa ngi toog ni di seetaan. noonu la mais xam nga boo xoolee sama menu bi boo gisee. Ah. Euh, boo ma xoolee xam ni maa ngi doon job quoi. <laughs> yaa maa ngi doon job. aussi tamit gis nga ñi nga wax ñooñu doon génn yëpp certes. ñooñu hmm. génn net bi moo ngi fële nii mais gisoo ci ku ci ñeme tëgg. ku ci ñeme tëgg. man yoruma public bu virtuel quoi. Ah. non non lu palpable nga yor. man nekkuma loo xam ne ay nombre de j'aime la. bu ñu bësee kii nii after ndax sa page Instagram sa noon sax daf koy abonné. dëgg la juste yow nag ñëw like la ku la xamul comme man sama sama genre yi man ku ma romb man nga nga reetaan loo ma sax ma abonné man sama yoon neewu ci quoi voilà. <laughs> am na solo. ba tax na lan mooy secret si 16 bi parce que dafa leer bu doonee 16 titres. Mm-hmm. album bi Menu comme ni nga ko waxee léegi nekk 16 titres 16 bi dafa am lu làkkatu si ginnaaw bon yaa def remarque bi sax mais mën naa ne jooboon naa lu ëpp sax triple album. macha allah ndax man dama prolifique quoi man studio moo si duggee man. Mhm. dama dama jàngi ba licence bàyyi lépp def musique. d'accord xam nga man ci musique laay xëy ci laay gontu ci laa yaakaar am oto takk am ñeenti jabar xam man. saa ñeenti bëgg ñeenti jeeg non man faa ma am ñeenti jeeg. kon baax am sama ñeenti jeeg xam nga mhm. sama gaale loolu lépp ci musique laa ko yaakaar yaa ngi fil. <laughs> Euh, kon bu may juug. ne dama koy def sa su ne dama koy def ak fulla quoi. effectivement deux ans yi ma toogoon yëpp liggéey naa ci lo xamni ni mën naa su ma neexoon mois bi di ñëw ma annoncé waat benen album. da nga paré lépp ngi lépp ngi studio quoi mais dama don xolo ci tam focus ban yoon lay jël voilà. nek na ci am lo am solo et sur cette même autodidacte Monu pourquoi Monu. Euh, pourquoi le choix de Monu. de bo xolé Monu Monu ci resto la ñu ëpp li koy gis. effectivement muy lan euh, différentes plats yo xamné mhm. euh, dañ koy dañ la koy ñeu proposer quoi. nga def ce choix. man dama gissone ni euh, am na ay bagages yoo xam ne ngi ci man. li nga xamné dama ko bëggone développer quoi duma duma du benn simple rapport quoi mais mhm. artiste la. li mo bëggone génnee ci man. c'est-à-dire tu es plus beaucoup plus complet quoi. merci lool la bëggone a génné feug sama bop xam nga man li nekk ci man. d'accord ma pourquoi pas ma def le choix jël menu. comme menu la ñu wax menu boo ko waxee di nga gis euh, dinañ teg ceebu jën maafe fii suppu kànja sombi mbaxal yaa xam a lu mu hmm. mënti doon loolu noonu lépp tey ma métaphoriser ko tey def ko son bu ci nekk mu doon benn plat mais ci affiche bi ma gis ni tey ba nga hmm. tegee plat bi hmm. euh, da génnee CD teg airpod teg cassette teg fourchette paak qu'est-ce que nga boo gisee tey euh, comme nee naa menu déjà. waaw plat bi moo ngi ci fourchette yi. kon mm-hmm. da pare pour coob ko ok li ngay coob noonu nga def ko ci biir nga gis muy muy muy airpod muy ay euh, muy muy clé USB. Mm-hmm. muy cassette. platine sax waroon na ci am quoi benn benn benn kii. mais voilà mais comme da doom rëy de trop. bëggoon nañ euh, comme nee nañ ma ne ñun si côté musique lañ nekk aussi mhm. tamit. ñu jëm mhm. ko métaphoriser quoi. effectivement voilà te musique aussi tam fa la jugee ci disque la jugee ñëw ci cassette ñëw ci lii loolu lépp lañ bëggoon a wane. d' accord macha allah nga jaar parce que à fois à travers tes tes paroles mhm. déglu euh, même ci son bi am na fi ngay waxee ñoom Lamartine donc. Euh, lettre war a dafa jaar xanaa. waaw mais mais moom mooy li ma lay expliquer quoi. def naa ba dem ba ba dem sama licence quoi. ni laa laa nag quoi mais coow ji jaayante naa ba dem sama. foofu macha allah macha allah. nekk ah. na bi. donc mm-hmm. comme ni ñu waxee seize titres la. Mm-hmm. donc on va prendre quelques rek mënuñu kii gis nga yoo xamante ne seetlu naa ne kat war naa ne mën a toog ñu mën ci waxtaan. Ah. donc bés njëkk bu may njëkkee mooy euh, jaar jaar. donc top sama xol def li gën euh lima gën ah li gën def lima gën def lima gën ah donc sama bok ah lu gëna graw nga né big ak feuille def outil de travail yeah. sama outil de travail sama xel la may fay sama xel la may fay ce sont des mots très forts fofu ya ngi wax ak jeune bo xamantene amna am jaar-jaar mm-hmm. lu ñu mëna wax ci lolu bon lu ma mën wax mooy xam nga léegi-léegi maa lay expliquer ba def dama dama jang ba sama troisième année mm-hmm. waroon def licence. Mhm. ma doom génne sama premier album en mhm. deux mille dix euh, ma arrêté lépp ma daan jàngi bu ma wàccee damay enchaîner dem studio. Mhm. ma def sama choix quoi man man dama musul bëgg a toog bureau. musuma ma a toog bureau. bëgg a doon sa bopp parce que voilà man sama bopp bopp laa musa laa bëgg doon. xam nga yàlla nag mooy lii quoi mais nit am nga droit ne man lii laa bëgg doon. dëgg la soit da koy gëm sa passe ou sa casse quoi. effectivement man ma gisoon ni musique bi am na lu ma ci yàlla may loo xam ne maa ngi koy wax ci benn son let me know bi ma ne école musuma garanti réussite dëgg la école musuma garantie réussite quoi mhm. maa ngi jàngi naa ni mais dama dama gisoon ni am naa beneen yoon boo xam ne carrément loolu moo ngi ci man bu ma ko développé mhm. euh, talent boo am boo ci nekkee liggéey ko xam nga gëm naa ni mu ngi ci quoi am naa aussi tam man ba may débuté ci ay ni may foowantoo comme mhm. jeune buy débuté amoon naa public boo am doole boo xam ne mooy sama ginnaaw quoi. macha allah voilà loolu noonu nag ma gis loolu ma ne pourquoi pas loolu lépp ay atu la. Mhm. man su ma wootee dinañ ma wuyu su ma liiwee mën naa ko quoi. effectivement takkaleewu ma ko mën naa ko. ma ne pourquoi pas ma def benn choix munu ma nekk fii nekk feneen léegi te musuma bëgge bàyyi ma jël musique bi def ko muy job. macha su ma nee Big ak Feuye outil de travail. parce mhm. que Big ak Feuye laay laay joobee. mooy ngay joob xam nga sama xel may fay faaw ma xalaat guddi gi bu ñëpp di nelaw. man fale mu demee nii bett ñëpp ni dee xam nga egg xam nga wax naa ba ne bu ñëpp di nelaw man maa ngi maa ngi xoolee affaire yooyu noonu <laughs> voilà moo tax ma def ko quoi macha allah c'est pertinent donc dans la comme ni nga ko waxee rek choix liberté responsabilité da ci am solo mais bu ma la nee looy gën di dem di gën a gis looy gën di gis di gën a xam mm-hmm. live comme garab boo xamante ne da nga ko jëmbat mm-hmm. boobu bantiit la lay jox euh, moo may jox koñ ba koñ ba ñu ñëw ci koñ ba léegi léegi koñ ba boo xoolee dafa nekk loo xamante ne mm-hmm. da nga retracé live bi nga xamante ak ay nit. donc ay nit yoo xamante ne mën ngeen foowandoo màggandoo dem ba dootu leen gisati. mu nekk loo xamante ne réalité la. lu fort. boo xoolee boo xoolee maa ngi koy wax maa ngi looy gën a dem di gën a gis. looy gën a xam. looy gën a dox looy gën a xam di looy gën a dox di gën a gis. a gis di gën a xam. comme garab. boo jëmbat lu muy gën a màgg. looy gën a màgg xaw ma muy mel ni xaw ma. je sais plus quoi. Euh, boo xoolee àdduna garab lu quoi comme comme li ma lay expliqué yow léegi-léegi la boo xoolee toj nga ko quoi. waaw euh, àdduna yow classe bi nga bokkoon. Mm-hmm. da nga fay dajee kay nit. xam nga àdduna aussi tam man xam nga ma ci xam nga ci ñeneen ak ñeneen sa gars yi ngay joowandool mm-hmm. xam nga ba ci sa waa koñ mm-hmm. loolu noonu lañ tax da koy xoolee tey looy gën a dem da ngay gën a gis te àdduna looy gën a dem jàngat lu quoi mm-hmm. ci ci nit gën a gis di gën a xam di gën a xam échange ma ni life comme garab boo jëmbat effectivement ah, lu muy gën a màgg ku nekk jël branche am xam nga ñenn ñi doon ay xob ñu xob yu rot quoi que boo xoolee ñu ñëpp jàngandoo nañu école jàng nañu école euh, di di lu ñuy daan paasendoo sax suñuy suñuy ensemble mo ëpp suñu famille dañ doon wax sax moy seconde famille école loolu la gaay daan wax légui nak nga gis aduna noonu la tamit aduna da ngay ndok ñiti di dem mu melni ni garab day mag di dem ben tronc jóg après da ngay gis euh, ku ci ne jël yoonam ko may ah. branche garab noonu la demee lolay aduna légui ñi ñenn ñi dañuy mel ni yu rot mooy maanaam euh, di nga gis ni di nga pett ay sisayon. yu bari ci sa ci sa yoon mhm. ni dañuy décédé. ni ah. do leen gisati. xam nga eh, ngay c'est pertinent c'est pertinent donc pour aussi on a vu l'engagement à travers les écritures. donc que lo nit yi dañ koy à travers li nga moy sunu vie quotidienne. Mm. donc ñu ñëwaat ci leneen li nga ci benen style mais engagement la cette mhm. fois ci ya ngi wax waxu mbëggeel xamanteeg jigen bo xamantene ah gu gis ko fil ko gen and xam nga gugee ko galem dem ñew waxtaan ak moom nga fu yewé ko faama <laughs> donc commencé nga bëggel bëggeel bëgganteeg moom dugg eh. bëggel mais ba nga démé ba ci biir biir fam marié la am benn déception mais ba nga xolé ba xol mënoo dudd sa mom mu nek ñu bari ñoo xamantene dañuy def dañuy dama ko dund et véritablement da ko dund da ko dund loolu mënul nous donne fen bu parfait quoi. Donc, nga quoi eh. comment vécu ça t'as te te des fois tu comprendre quoi que je suis peut-être man xawna ci jaar ko wax à travers ma voix sama sama sama sama sama sama ah. plume soit vécu de vécu lan la sa sa vécu effectivement wala entourage wala fiction quoi. Euh, man boo xoolee. dama ne sama life raconté. album bi xaaj bi life. la ci kii quoi. je mm. jigéen la boo xam bari na ñoo xam dañ leen di ay mel leen ah, Europe pas ñu may sans sans consentement wu sax bi. xam nga ah. ñu may ko mu yoon appartement nice chill nga ne nga dajeeg moom si koñ bi lii ko début bi mën nañ lii after mu nangul la parce que buggul kee. waaw changé après léegi loo leen di gën a dem xam nga nit moom lu ñu ne jigéen du bëgg day miin xaw ma. Mm-hmm. Euh, loo di gën a dem di gën a lii nii after mooy loolu quoi dem ba mu mbëggeel juddu si mais nekk si ngay comprendre que ni kii amul woon jëkkër. mais ba mais ba nga yëgee ni moom dafa amoon jëkkër aussi choc boobu la def c'était en fait. bon suis ngi reetaan de voilà doo comprendre quoi. Ouais. comprendre am na yoo euh, pour sensibiliser mais. il y a des gens yow. sax aussi des ñu ñu ñu. ko ñu bari. dugg ci yenn aussi Sempre macha allah bu la ko ko moom waaw bu la wooyee mu la jot a di macha allah boobu moo nekkoon Fama nekk son bu neex aussi bëgg naa ngeen dem déglu ko bu ko defee rek di ngeen ci gis eh, lu lu garaaw ñu hmm. gis ni nga def aussi benn featuring avec un monument hmm. ki nga xamante ne mënoo wax rap galsen te doo ko si boole muy gën man xumaan cette fois ci ngeen wax tristesse iya. tristesse la perte d'une être qui est vraiment cher kenn koo xamante ne ku jege la dee. di ngeen wax ci dee boobu oh nekk loo xamante ne message bu fort la. tout d'abord sa featuring nga gën man xuman waaw sama choix si moom euh, déjà dama koy biir bu baax. Mm-hmm. grand xumaan. Euh, parce que ba muy rap ñun booy la ñaa ñun ba ñuy judd ñoom ñoo ñoom doog a tàmbali. ñoom mm-hmm. ñoo ñoom ñoo fi andi hip hop ah, boo xoolee. Mm-hmm. Euh, mu nekk grand boo xam ne aussi tam lu tax ma def choix boobu ci moom boo xoolee man ni ma ci waaye. ma porté loolu noonu ta pourtant mënoon naa ko jox sama génération. ñoom ñoo doon gën a kii ci adapté wu ak vibe boobu quoi.

ci yem ñëpp a ci yem kenn rayu fi kenn kenn koju fi kenn xam nga euh, moom nag dama gis ni moom dafa nekk grand boo xam ni. day adapté wu ci ci ci style bu ne. d'accord c'est comprendre ba ma ko ko wanee moom ci boppam moo ma gënoon bëgg son bi. parce que dafa gis ni man déjà mu ne moom li mu dundoon la. Mhm. te chaque jour daf may woo téléphone ci loolu. ñuy wax ci son bi parce que daf may daf may ne li mu li mu li mu yàgg a sentir la bëgg ko génnee ci xolam. parce que perte na benn kenn ko xam ki ko jege woon la. amul nu mu koy génneewee. moo tax ba ma ko ko joxee tag rek xam nga. Mhm. voilà moom da ko def sonam quoi. allah di ñaanal ñëpp ñi nga xamante jóge nañ fi. mu nekk son boo xamante aussi près d' enseignement. donc ngeen mën euh, Flow mm. mais aussi un artiste très complet du nom de El Maestro la Kangam. ngeen tudd Bou. mais yéen tamit da ngeen da mbëggeel yéen ñett noonu noonu ngeen featuring ci wàllu mbëggeel loolu danger depuis Fama. kii laa nekk de. Euh, nu <laughs> depuis Fama kii. Euh, mujj nekk quoi. la mujj rek euh, genre. non non kii. toog sa coin.

ah loolu yëm ñëpp ca ta ta mais pour muy couple boobu noonu ni la nee wax looy wax sa couple bi dafa dal takale naa ko rek fit OMG OMG tamit nekk koo xamante ne fii Sénégal bu ñu waxee ci mouvement hip hop bi surtout si jigéen ñi mën nañ si jàpp ni peut être moom moo ci ci ci ci bu complet waaw ku humble cool rab day way cool cool may big up jëkkëram bu baax a baax ci tamit ma koy big up ah. biibal jubal mooy loolu maa ngi koy biiroon quoi. ba tax na featuring yi ci def yu am solo la. may mm. ñëw ci làmb ji. Mm. Ah, ak Ibro mm. mais si deuxième couplet bi dama gis ni foofu da ah, moom sa bopp nga doon. i rappeurs yi ñëpp maa leen waaw maa leen ëpp doole ak yooyu tàppe jarul waxi dënn. waaw napp leen du dara yàgg sa xelu jën. waaw bu dee ay nga a eh. bàyyi li ma lay expliquer moo ci ne rappeurs yi amuñu gars yi amuñu vécu de. Euh. dañuy xëy ni xam nga tëju studio cabine xam nga lu tax. Euh, ñun xamante nañ suñu biir ko mm-hmm. da ngay gis ñi ñoom clashante yëpp ñun buñ daan daje ci yenn affaire yi yëpp. Mm-hmm. kii day taxaw ñàngal ke taxaw fee ñàngal. loolu mm-hmm. rek la. Ah. jeex na. macha allah macha aussi euh, delloo nga leen jukkal. te tudd nga fa ñi nga xamante ne ce sont des monuments. ku ci mel ni roi des arènes. Modou Lo Balla donc euh, gars yëpp tudd leen a ah, ay ñoom baar bu ci nekk day wax ah. baar bu ci nekk day wax mooy ah. su may ne baar mooy verre quoi. pour ñenn gars yi comme Euh, bu ci nekk d'ailleurs parce que dama ko métaphoriser quoi. voilà dama ko bindee ci côté làmb bi mooy. macha allah ma def see Ibro mais boobu nag. Ah. côté làmb ji nii mais boobu boppam lay waxal. Ah. <laughs> boobu gars yi di ñëw si di ah. ah xol bi laa la jox yóbbu ma fu la neex euh, ngay euh, bég ci laay dox. Mm-hmm. ah beneen mélodie beneen style. différent bu ñu doon gis. nga woy ci carrément. deux ans et def ci recherche ci créole som les ne a créole quoi xam nga ci lolu wër ci yenen mhm. xam le, ay quoi mhm. ñu ci ci promo album bi album bi depuis le 29 mhm. macha donc ñu def séance d'écoute euh ah, ah, gaay ñëw mu nekkoon loo xamante c'était une réussite totale donc actuellement fan le promo bi toll waaw instant bi dañ doon bàyyi comme le 29 la woon. doon bàyyi benn un mois bu dëgër. pour gars yi nekk ci seen euh, pour gars am écoute bi quoi. Euh, déglu album bi bu baax a baax. Mm-hmm. di wax ni gars yi aussi tamit nañ daw streamer affaire yi quoi. waaw surtout loolu. Euh, nañ ko streamer. di wax ni mm-hmm. aussi tamit mu disponible la tamit ci format USB quoi. USB 10 000 francs lañ koy jaay. gold bi cent cent mille bi moom mun naa ne xaaj bi yëpp mat na quoi. gold bi jar na. maa maa ngi bégg ñëpp. Ah, parce que ah mooy noonu xam nga. Mm-hmm. non da nga siy jël da nga siy yow. yow yow doo jël cent mille. ah moom ñaar laa jël yow yow am nga xam naa la xam nga xaalis xam nga xam nga maay maay meeru parcelle mais yow yaay yow yaay premier kii adjoint yow am nga xaalis <laughs> da ngay jaayaat sa bopp rek. ah waaw kon baax na xam nga di wax ni gars yi xam nga affaire yi disponible na. Euh, mooy loolu nañ ko daw déglu quoi. d'accord album la boo xam ne bari na ay bagages si biir quoi. Mm-hmm. génne wu ñu mën nii nii kese mais am na ay thèmes yu am solo. def nañ ci ay recherche si tamit euh, jéem nañ jaayante quoi di yeneen affaire yoo xam ne du ñëw mm-hmm. rek pour mu deewee. macha allah donc man lu ma ciy wax aussi mooy euh, boo amee jeunes yi nga xamante ne dañoo jóg. Mm-hmm. kenn nekkul seen ginnaaw ah. Mm. donc à part moom staffam ñi nga xamante ne peut être ñoo koy jàppale. Euh, luñ ci mën di def mooy ñu mën a streamer dem streamer ñu mën a jënd album jënd pour jàppale leen donc da am solo bu baax a baax a baax. des fois très difficile. surtout comme li nga wax léegi nii nii yaakaaroo ci kenn sa bopp nga yaakaar. Mm. Mm. tu sors album. Euh, des fois bo amul ben jàppale bi dina met trop. donc comment ça se passe aussi nonou liguey bi surtout communication pour gars yi di mën a streamer wala gars jënd album bi aussi nu démé demee. defoon peut-être ay caravane parcelle ak yeneen gox yi. pour gars ki ko waaw bon comme li may expliquer hein, mm. euh si deux ans yi maa la koy expliquer man dama doon job. d'accord ak beneen structure quoi. wa doon naa job ak beneen structure bo xam dama mujjoo arrêter le parce que. Mm-hmm. mënu di job pour kenen quoi. waaw maay xëy maay sonn maay li maay aftalu lii man boo xoolee Sénégal bokk naa ci artiste. Mhm. loo xam dama koy rëccu aussi tamit man man la man la a sponsorisé suñu bet njëkk a man man ba may def parcelle mooy li ma parcelle booy bu ci ñëw sama tuut tànk ngay doon. Mhm. ak ku mu mënti doonaa ba ci grand parce que. non loolu loolu loolu loolu noonu. diiranteeg sa musiba la. Ah, xam nga fu may waxee garab ci kaw lay non d' accord d' accord xam nga tey d' accord gaynde nit ku ne da nga koy respectel euh, li mu doon li muy def. ma booy hmm. duñ samay concurrent kon ma gën a tuuti bët quoi. loolu kon ma tuuti parce que man ba may ba may ba may débuté laay def ay vidéo deux millions lu teg. dama ko doon teg semaine bi semaine bi ñu ñaa boo yow gis nga samay vidéo du mu doon génnee. ay <laughs> man dama yàgg investir sama musique. dëgg la parcelle buñ ko déggaatee hymne la. xam nga même bu ma jëlee lii aussi tam du loolu boo yoonoon fierté la ci man parce que ñun ñi ngay gis a boole son mhm. maa leen njëkk a yéegal concert yu mag yooyu sama bët ne dama koy gis gars yi dañ koy laaj booy ñëw nañ booy lii wak la booy duñ samay concurrent samay rakk la ñuy doon yii ni tay ñu parce que hymne nga daan dégg bu ñu xëyee yeneen mu ñëw euh, ah, deux ans yi dégguñu ma ñeneen jug xam nga loolu noonu juste peut-être dama leen koy may quoi mais man Alioune Zik samay mag la ñuy ne. Ah, mais Ibou nag yow man seetaan naa la ak Pape Sidi émission bu mu amee tak yaa njëkk a classe waa Alioune Zik grand yi fi dara pour rabu parce que. Oh, dal seen kaw booy tamit war nañ dal ci kaw Ibou. lu leer naa la ko booy yi war nañ dal ci kaw. c'est pas pareil xam nga lu xoolal bu leen ko déglu de <laughs> xoolal au fait au fait Alioune uh-huh. euh, booy booy wax tey pionnier wu hip hop Galsen. doo leen ci teggi. hip hop Galsen doo gis groupe bu daa karapal yéen si loolu sama baat ci kaw échange fil mais parcelle nu mu toll yëpp xoola parcelle ni mu toll Alien Zik bu ñu demoon ba lii foofu rek laa doon waxee ñoom quoi. Mm-hmm. ñoom waroon nañu def comme ni Fou Malade def. ni Matador def Matador Pikine dafa teg Africulture urbaine géejawaay kee dafa ji pop pourquoi ñoom xeexuñu woon loolu. pour parcelle. studio bu baax amul parcelle boo xam ne lu dul loo xam ne dañ ko fa teg. wala fu ñuy tëggee ñun bu ñuy tëgg yëpp dañuy génn. Ah, man ba may ba may débuté Kabana laa daan débuté. te du yoon parcelle ni mu toll ba amul foo xam ne war nañ fa a tëgg. mais j'espère que yaa nga xuloog benn boy. seepet na munul ne de am na moom parce que man son rappel yàgg nga ma jox ay boy naan ma. yàlla jël leen waaw loolu moom nekk loolu am solo ba bu fàtte am benn jour ma jël benn boy boo xamante ne yaa ngi ko jox boo bi la classe. ah booy bi. <laughs> après dafa jaaxal <laughs> ma ne ko mais yow. Dama leer bi kelas kan mau ngomong tuh aja kelas classe ah man mooy loolu de bon. tubi la tubi maa ngi lay bigam. <laughs> non mais amul problème mooy loolu donc be sino ñu jeexalee euh, est ce que yaa ngi ay concert. yaa ngi waajal ay euh, ay événement pour say fans parce que jot na quoi gars jakar jàkkaarloo parce que gars yi na mu la. bu baax bu baax maa ngi my maa ngi waaj bugguma wax na quoi. Mhm. comme jour bee maa ngi tooñ buloo naajo. Mhm. naa ko booyee ma quoi. mais ah non foofu moom suñu bës la suñu événement la de voilà euh, bi fa la ñuy dem yàq plat yëpp ah mais loolu moom nañ ko loolu na ko gars yëpp xaar légion yi aussi tam nañ ma xaar quoi incha allah incha allah dem maa demoon maa ñëwaat maa ngi nii yaa ngi nii Ibna pour ñu jeexal top 5 yan ñooy sa son favori ci album bi euh, jaar jaar jaar jaar jaar koñ ba koñ ba euh, jaar jaar koñ ba let me know. let me know. let me know. waxal bi tam neex na ma. waxal bi muy kat ak aussi di Dichaw.

dinañ ko def. Ah. def nag. boo xoolee si yow laa démarré sama. waaw après ma war naa dem Sénégal war naa jàll. kale nañ lépp quoi mais voilà. respect et, ah. loolu tamit dama la koy dama koy mm. dama koy dama koy remercier tout d'abord mm. parce que tele yi bari nañ mm. yi bari nañ mm. mais lu ma sëkk ak yow tax na ba boo defee dara mm. ci ñi ngay njëkk a woo ne ma carrément balaa may dem fenn ci laay dem yeah, respect boobu dara la ci donc bu dul sax métier bu ñu nekk man ak yow ay copain lañ ko. déedéet du loo xam nga xam nga des fois non du ma la ko nëbb kii xam na li may wax dama waroon a am émission ak ak ak ak seen kii bi tay tay yi may wax yow. mais du ma ko nëbb dama ko dama ko annulé ñëw yow. parce que maa yow du tay gis nga gis nga nit kóllëre dafa baax si nit quoi. yow koo mënti doon ci live bi bul fàtte koo xam ni démb mus na la teg loxo. dëgg la dañoo dañoo lii doo xam nga. Hmm. Euh, ci lépp da may woo sax sa waay waroo toog lu yàgg. am loolu noonu ku la koy def ku la yéenee la quoi. yow boo nekk boo yoroon benn portable kese toog di wax di ko dugal. benn nit di la xool damay ñëw ci yow. loolu du dañ quoi. depuis RDV yaay fàllu spécial corté bu ñu waroon def. <laughs> yàgg nañ ñëw jël Ouz mag yi teg leen fële ngeen ne amee gars yi bu ñëw <laughs> video hali pun lah jele pasti jele sunu ko be jele mu je ndaysan donc fofu RTV aussi ñu nekkon fa ak gaay nek def lu nice donc yow tamit nek nga ci artiste yo xamantene des fois motor itu, dama lay wo menalu la wone la boy suba suba soxla na la émission da ngay ñew donc yow tamit ba ngay def sa événement lu mu xat xat dañuy dem donc tamit ñu ngi xaar aussi show bi euh inshallah lepp li nga xamantene Pulse TV dina ko def ñun lu ci mëna apporter inshallah nañ ko ci apporter da lay ñaanal jam bu baax baax donc bo amé message bi ngay jox say followers say fans ñi nga xamantene ñoo lay bégué donc lan lay doon aussi. bon di di di la remercier aussi encore euh ci invitation bi ah di béggee aussi tamit ce cadre beeg. Euh, baara bisu voilà bisu di len béggee bu ba di béggee aussi tamit kon Mouhass Diazza. di béggee gars yi suivre Pulse si yëpp ah. macha allah di wax ni album bi disponible na. Mhm. menu la na gars dem streamer ko. machallah dama na gars xaar. gars yi xaar fan yu néew dinaa am ay bagages yoo xam ne maa ngi koy kii quoi. te ñu ngi si ay tournages yu métti di ngeen gis. surtout clip bi incha allah macha allah du yàgg léegi solo merci beaucoup mon ami Ibn Ziaza donc ça a été un plaisir ma interview exclusive bi nga def album wax émission Pulse TV à travers toutes nos plateformes digitales mais aussi si nos plateformes d'information information di fa article boo dañ ko ko uniquement. Mm. donc lépp li nga vous êtes passionné de lecture boo leen fa lire lu bari Ibn Ziaza Plaza gars merci beaucoup ça a été un plaisir donc côté, leen rendez-vous prochainement avec euh, beneen invité di remercier Serigne Bar, bi nga xamante ne moo nekkoon ci caméra bi mais aussi Bisou, bi nga xamante ne moo nekkoon assistante bi maa ngi di jox rendez-vous semaine prochaine merci.